cité Dakar Dem Dikk fu sori la daal di jóge teewul nag lépp nekkoon jafe-jafe ñu daal di koy saafara seen biir la ko war a rek moo di liggéeykat yi def seen kéem kàttan ak ay coppite yu yees loolee la Ousmane Sylla daal di xamle ba muy joxe lenge yi. waaw fexe nañu daal ba daj lépp wala sax genn wàll nga xam ne ci territoire bi la ak projet renouvellement parc bi lu tolluk rek ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki daamar yoo xam ne Iveco la waaye tamit fexe ba dakaar dem dikk ci niveau bu nga xam ne ci wàllum koppar dina am fanweeri million ci bis bu nekk waaye tamit ci doxalin boobu rek gën ko yeesalaat ci service yi nga xam ne mën la Dakar dem am waaye tamit fexe nañu ba daal di uh, méngoog ci jumtukaayu xarala yi directeur général bu bees bi ak ña fay liggéey ñoom nag ñu rafetlu liggéey bu mucc ayib bi Ousmane Sylla amal. mon frère le directeur général sortant mu def liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la si euh, la transformation aujourd'hui ou Dakar Dem Dikk. ci turu conseil d' administration bi ñu ngi rafetlu bu baax liggéey bu am solo bi nga xam ne def ngeen ko bi ñu fi nekkee ba léegi. Assane Mbengue nag ne naam am na ay jafe-jafe yu fa nekk ak li ñu xaarandi ci moom teewul mu am yàqin ni dina yóbbu bile société fu sori. seen ay jàmbat dégg nañ ko te li ñu nam mooy que ni bu soobee yàlla ñun ñëpp ensemble ñu liggéey pour teg leen ci condition yoo xamante ne. Euh, seen environnement wu liggéey seen i conditions de liggéey dinañ ko gën a améliorer bu ñu améliorer seen i conditions de liggéey euh, seen i conditions wu dina am jeexital si euh, maanaam service bi nga xamante ne moom la ñuy jox usagers yi. gannaaw bañ joxante lenge yi ñoom ñaar nag ñu ne dogoo nañu àndandoo daal di liggéey lañ ci jublu moo di Dakar dem dikk gën a fësal xar kanamam ci wàllum transport public.